di nuyu suñ secrétaire bi di monsieur Souleymane Ndiaye ñun daal Olivier dañ koy xamal lu ndaw rek ñun jigéen ñi Souleymane Ndiaye du ñu moromam ah ñun ñoo dul moromam surtout Souleymane Ndiaye affaire bi lañ bëgg mu dagg Olivier yow yaay kan ak foo toj yemal sa place parce que yow xamuñ sa nan lañ la mun a imaginer matoo nit ñun dañuy wax ak koo dafa mat nit yow pour nit ñi xam ne yaa ngi guddoom il fallait que nga attaqué Souleymane Ndiaye oh mais loolu moy dag sino jigen ñi Souleymane Ndiaye ñoo lay fekk ba sa kër gogou dinañ la def lo xamantani di nga xamné lepp deug la ñun fooyewuñ Souleymane Ndiaye Souleymane Ndiaye fi lañ ko tek moy suñ or moy suñ lepp Olivier yow tojo fen buñu sonal mouvement nga yoré yoro parti yoro dara buñu sonal en tout cas dal bo ñëwaaté nga def sortie dinañ def bu gën pire bi dañ la ñamal rek de film baa ci kanam <laughs>